Le rapport mondial sur le handicap organisation mondiale de la santé la banque mondiale publié ko dafa wax Sénégal téeméeri nit de fi jël et qui ak juróom dañu amee laago bu Le Sénégal 18 millions d'habitants moo fi nekk kon way laago yi jege nañu millions de réew mi te 15 yoy wax nañ 62 ay. handicapé moteur lañ maanaam li ñuy wax handicapé physique kon loolu lim bu takku la wax nañ ni tamit réew mi mënuñu fee def dara wala waruñu fee def dara te du ñu boole way laago yi ci li ñuy def ndax tànk àddina mi ngi am laago mu ngi am laago maa ngi ci doon waxtaan ak. Euh, madame Sophie Diallo fanny passe passé ci bureau de dafa bind nit ñi te yamalewu leen dafa bind dans la diversité Ni dañoo ne góor ni nek jigéen ni injol, ni gat, ni nul, ni xees etc. Ouais tamit ñii handicap. loolu moo tax bien. le handicap est un élément de la diversité humaine parce que l'humanité est une diversité bu ñu ko xamee noonu lépp lu ñuy def rek war nañ cee sóor way laago yi waaye ñu gisoon ne senegal dañu am problème bu mag bu jëm ci woy laago yi ndax képp kuy wax ku amee laago jafe-jafe bi muy njëkk am boo nee da ko bëgg a jàngal mooy nan ngay def pour mu mën a dem école moom way laago bi jàngi bu dee danga ko bëgg wutal métier naka ngay def pour mu dem defi formation naka lay def pour liggéey naka lay def pour doxi soxlaam bu amul appareil li ñuy wax aide technique moo xam pousse-pousse la moo xam beeke la moo xam appareil orthopédique la moo xam prothèse la moo xam orthèse la loolu mooy li nga xam ne mooy dimbali ki am laago bu ko amee ba pare ci lay door a mën a dem jàngi wala mu dem liggéeyi wala mu dem defi leneen kon appareillage dafa nekk loo xam ni dafa central ci dundu way laago ñu gis ni nag Sénégal ñi doon defar loolu nekkoon ci liggéey boobu ñu leen di wax technicien orthoprothésiste daanaka amatu fi woon ndax ki ñu mujjee formé jàngal ko mu am diplôme de technicien ñu ngi ko formé en 2004 mille sax il sax yaa un mois maintenant elle a quitté le Sénégal elle a elle ne travaille Sénégal donc pratiquement on peut dire que amatul kuy technicien orthoprothésiste li mu jur ci jafe-jafe mooy handicapé yi nekk maatam wala yi nekk Louga. wala yu nekk Tambacounda souvent dañuy jóge foofu ñëw ba Ndakaaru pour ñu defaral leen seen appareil bu dam wala seen appareil bu yàqu waxuma nag ku bees koo xam ne dañ ko war a defal fabrication bu bees loolu problème bu rëy la woon ci handicapé yi amatuñu technicien ñi fi jotoo nekk daanaka ñoom ñëpp retraité nañu nabe dee ngi nii toog Aloïse Namès ñoom ñëpp c'est des techniciens ortho mais qui sont à la retraite ci structure de santé yi amatul won ay techniciens formés diplômés ndax Afrique de l'Ouest yeb ben rew lañuy la am école buy former ay techniciens orthoprothésistes muy Togo te Togo pour nga fa étudiant Sénégal mu jang fa ba diplôme at mu jot ding 20 millions donc un étudiant coûte à l'État 60 millions pour mu am diplôme C'est aussi dafa 10 loolu moo tax étudiant bi mujjee dem Togo 2004 la fa demoon deux 2004 la génn kon loolu yàgg na ñu am réunion nag daje ministère de la santé daje fa ak OMS daje fa ak CICR ñëpp ñuy yëngu ci wàllu handicap ñu doon waxtaane nan la ñuy def pour que ñu mën a am ay appareil pour mën a dimbali handicapé yi Sénégal woo école yi woo woon ISEM bii nga xamné école paramédicale wo ENDSS nga xamné tamit école paramédicale ñom ñoom ñu ñëw tok ak yeneen acteur bi ñu waxtaanee wax ne bokku na ci li ñu war def ñu fexé ba au moins ñu am Sénégal école bo xamné dina mëna former ay technicien ortho parce que moy gëna moins cher nga jël ben étudiant fayal ko 60 millions ben étudiant rek ci la

xool contenu yu waxtaan ak ñi ko xalaat acteurs yi ko séq yépp ba xam lan la ñu war a jàngale ak naka lañ ko war a jàngale pour ko bu ñu génnee diplôme bi ñu leen di jox nekk diplôme bu valable bu ñu génnee ñu mën a liggéey ci handicapé yi bi ñu xamee loolu nag ñun kuréelu woy laago la ju suñu yitte mooy defendre intérêt way laago yi te loolu seen soxla la woon ñu xool comme ni ñu ko waxee président Macky Sall def benn outil benn instrument bu am solo muy 3FPT nga xam ne 3FPT amul xàjj ak seen Sénégal yépp la war a concerné ñu dem seeti directeur trois fpt waxtaan ak moom ci problème bi ne ko bii problème moo fi am trois fpt li ko tax a jóg mooy mu fexe ba ndaw ñi am métier mais mu fexe aussi bañ defal leen insertion ñu ne ko madame DG tey jii soxla bi am jëm ci handicapé yi mooy boo ko financé de di nga mën a may ay ndaw ñu jàng am diplôme am métier waaye di nga régler beneen problème mooy di fexe ba handicapé yi sax jafe-jafe yi ñu doon am mu dañ parce que li trois fpt def li ñuy wax ci tubaab c'est une pierre pas deux coups mais une pierre plusieurs coups parce que après plus tard il faudra faire l'étude d'impact donc c'est une pierre plusieurs coups 3FPT lu loolu ànd ci ak ñun génne lu ëpp téeméeri million pour que xale yi ñu mën leen a former ñooñu jar nañoo kon nag directeur général trois fpt encore une fois ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant def nañu réunion waxtaan nañu am nga vision boo xam ne ci handicap am nga vision boo xam ne ci formation loolu bi ñu waxtaanee wax naa leen ne man sama xel dal na je suis rassuré ma gis ay kilifa yu mel ni yow am gis-gis boobu ci handicap ñu lay gërëm bu baax di la sant di la ñaanal di la wax ne dinañ continuer collaboration bi bu soobee yàlla pour njariñu handicapé donc 3FPT jël alal ju tol noonu def ko ci ñu former déwén déwén jéeg madame la directrice générale dinañ am Sénégal ay 10 wala 20 techniciens ortho diplômés Nous sommes aussi dina leen employé madame le directeur général de l'action sociale nous sommes parce que état bi daf ko soxla Krao Thiès amul technicien ortho Saint-Louis amul technicien ortho Krao Louga amna kenn CRAO Ziguinchor amul Krao Tamba amul CNAO amatul soxna Fall moo fa nekkoon dem na euh, amul donc fépp foo qui ni ci réew mi ñu ngi fiy toppatoo affaire appareil handicapé amatul technicien diplômé xam des techniciens formés sur le tas C'est différent Madame ku ci atelier di ko fréquenter di fa jàng métier ba ne métier mi bokkul ak ki nga dafa suivant un curriculum bien défini ba am ci diplôme Lolo moom pratiquement le Sénégal té lolo madame Sophie Diallo voilà le problème que vous avez réglé au Sénégal vous l'avez réglé pour le Sénégal pour la jeunesse sénégalaise mais également pour les personnes handicapées donc on ne vous remerciera jamais assez pour ça li dalal aussi directeur général de l'action sociale nga la politique du gouvernement sénégalais en matière de prise en charge des personnes handicapées le docteur Aram Totsel, Je moom le rek gouvernement du Sénégal qui nous a handicapé non seulement teew mais depuis le début du processus du nelaw du tëdd du gens qui ont ci on a voyagé avec elle au Togo dans des conditions très difficiles n'est-ce pas dans des conditions difficiles on a été à Lomé dans une période également difficile de pandémie Euh, mu le confort de son bureau climatisé ànd ñun parce que dafa gëm li de def dafa gëmoon projet bi kon bu projet bi ñëwee ba yëg si aussi mom Aram Top mom ak toute son équipe amel nañ leen njukkeel ameel nañ leen ngeureum directeur Ablaye aussi comme niñ ko waxé c'est un entrepreneur sénégalais audacieux qui ose et qui a pu réussir cette extraordinaire euh, euh, activité ba tey jii ni ma ko doon waxee sànq Massignan sénégalais la ma nga nekk Togo waaye moom moo ëmb képp kuy technicien orthoprothésiste ci Afrique wax nañ ne lii buñ ko dëgëralee comme Lomé dafa cher te réew yi nekk Afrique de l'Ouest yëpp foofu rek lañ doon yóbbu seeni étudiants jàpp naa ne à partir de déwén ak at yii di ñëw si dinañ mën recevoir ay étudiants maliens ay étudiants guinéens ay étudiants mauritaniens pour ñu ñëw fi former leen techniciens ortho parce que la formation ici au Sénégal est largement moins chère comparée à la formation au Togo donc loolu aussi plus-value la ci économie réew mi madame Sophie Diallo ñu c'est une pierre plusieurs coups li mu am li mu entraîné ci ay conséquences yu baax ci mi xamul xa kenn xamul lu mu toll peut-être que fii ak ñaari at ñetti at dinañ mën a def évaluation bi kon encore une fois ñu ngi leen di gërëm bu baax ñun duñu ci dara ñun dañoo am soxla rek jéem a xool fan lañ mën a jaar pour soxla bi faju ñu jaar fa yàlla boole ñoo ay nit yu baax ñu faj soxla bi tey jii comme ni ni ko laa doon waxee xale yi ñuy formé ni c'est des bacheliers des séries scientifiques parce que si on nekkul bachelier série scientifique pas de formation Donc, donc a un bac scientifique a def sa formation trois ans a un technicien supérieur on a un état bi dina mais ñu dul état aussi dañ leen utiliser parce que l'ONG a une organisation aussi yu a un handicap international yu mel ni CICR dañuy ont aussi un technicien ortho Donc, comme je le encore une fois amatul Sénégal kon li ñuy def nii